qadiru bi ijaabati jadiir buur la boo xam ne képp ku ko ñaan te ñaane ko nam ko war a ñaane suñ boroom subhanahu wa mën na ko nangul yal na yàlla nangul ñun ñëpp di ñan li fi génne ci ay kàddu yal na ko yàlla def muy kàddu yu génne ci gémmiñ gu jubloo jariñ ña mi waxal dajeeg nopp yu jubloo jariñu ca leen di wax ci njëlbéenu jotaay bi ñuy nuyu kilifa yi fi teew yépp tàmbalee ko ci sëriñ Abo di suñu xarit di suñu mbokk ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci yitte ji mu am ci dëkk bi di nuyu it mboolem kilifay diine yi nekk ci jotaay bii ak barab yuñ mën a jóge yu fasantikoo yi borom xam-xam yi fi nekk yëpp ñu di nuyu di leen ndokkeel li mbokk yi sàkk woon ci ñun ne mu ñëwee suñ kaddu nañ ko ci jëme mooy jotaay bu jëm ci jàngat lenn ci mbindum sëriñ les mana tomb tey bi dañoo gis ne jamono da koo soxla ndax buñ tolloo ci jamono joo xam ne tolof tolof yi daa bari ci jamono joo xam ne fitna yi dafa tasaaroo toll ci jamono joo xam ne lu bari ci nit ñi ñi ngi def loo xam ne jaaduwul laaj na nag ñu nafaraat li fi kilifa yu baax yi bàyyi woon kilifa yu baax yooyu nag dañ caa fas jël kenn ci ñoom nekk seenub soppe te mooy Cheikhul Xadim radiallahu anhu lenn ci mbindam te nga xam ne day mel ne jamono ji moo taxoon mu ko doon bind loola lañ bëgg a niitaat tey bu ko defee nag ku fi jóge jotaay bii liñ fi waxtaane na ko digloo xol waaye na ko digloo xel na ko digloo xol mooy tax mu mën koo fas na ko digloo xel mooy tax mu mën koo wattu jotaay la boo xam ne jël jëfe ji rekk la laaj te man mi koy wax génnewuma ci saa bopp kon kàddu gi may joxe dama leen a wuutu dong ci joxe ko waaye man ni koy wax maag yéen ñi ma koy wax ñoo ca bokk yam ci lépp luñu war a jël jëfe ji waaye lépp lu war a moytu it société bii ñuy dund ci biir senegaal dafa amoon société bu sëñ Tuba andi woon société boobee nag nañ ko nafaraat jàngataat ko xam la sëñ ba waxoon danañ daal di xam automatiquement li xew lan la moo tax waxtaan wi ni lañ ko bëgg a tërale ci njëlbeen danañ andi benn laytaay di laytaay boo xam ne ku ko déggoon nanga ko fàttalikuwaat ku ko déggutoon nanga ko dégg tey laytaay boo xam ne dafa fes dell laytaay boo xam ne dafa diis gann laytaay boo xam ne dafa am mi njariñ laytaay buy atte àdduna di atte àllaaxira di laytaay boo xam ne ku ko dégg te jëfe ji ko ñu rafet ci yow njort ku ko dégg te amul benn ci yow jeexit ji mu def ñu am ci yow ak ragal ni am lu ñuy ragal ci yow laytaay boobu dañoo nettali ne ci sëñ Tuubaa jóge radiyallahu anhu kooku moom la ñu ubbee waxtaan wi suñu weesoo loolu danañ dugg ci présenté benn société boo xam ne sëñ bee ko joxe nit nii la war a mel ñi ànd ak man te di ma déggal waaye bépp jullitit société bii la sëñ Touba andi woon ñu xool ne li mu ci lëmas li mu ci jàngale bu ñu ko jëlee lan lay indi suñu ko bàyyee lan lay jur su ko defee nag tomb ñaareel ba tomb tomb ba ca tegwaat ci jotaay bi mooy lan ndax société boobu sëñ bi indi ñi ngi koy dund wala dunduñu ko su ko defee nag ci mujj jotaay bi ñu indiwaat beneen tënkaat boo xam ne dañu wax ne ci sëñ bi la jóge su ko defee yóbbuloo ko mu nekk ñaari tënk yu ëmb jotaay bi kon man ngaa wax ne benn introduction ba benn muqaddima benn lay taay bu aju ci loo xam ne sëñ bee ko wax mu nekk ndénkaan ñaari tomb mooy benn bi présenté société bi sëñ Tuubaa andi woon bu ñu ko respecté lan lañuy ñu jural suñu ko bàyyee lan lañuy ñuy waaye itam ndax ñi ngi koy sàmm wala sàmmuñu ko mooy ñaareelu tomb bi la ci mujj nag mooy tënkaat andiwaat beneen maanaam dénkaane boo xam ne ci sëñ bi la jóge mu nekk ab yóbbal ci ñun lii lañuy ñaan suñ borom may ñu kattan ñu mën ko fee jotal yàlla na way yàlla may ñu làmmiñ buñ ko mën a leerale mbokk yi dañuy wax ne sëriñ bi nee na nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam nit ki amul lu may ñeent jëmmam ay bokkam alalam ak jëfam mu ne nit ki saa bu faatoo ñàkk na jëmmam lu fa des ay bokkam ak alalam ak jëfam mu ne bokk yi saa buñ ko waajalee ba mu jekk raxas ba mu set takk ba mu dëgër wàq ba mu xóot fas yéene ko jébbal boroomam ñàkk nay bokkam loo bëgg-bëgg nit doo ko bëgg mukk ba tëddal ko ci biir bàmbeel donte sa baay la donte sa yaay la donte sa soxna la donte sa borom kër la donte sa doom la kum mën a doon ci yow bu waxtu tëdd biir bàmmeel jotee nga bàyyi ko mu tëdd fa kon ñàkk nay bokkam ci biñ ko waajalee ba noppi lu fa des alalam ak jëfam mu ne alal ji buy dugg ci bàmmeel bi alal ji danaan ko man duma dugg fii duma dugg fii damay dellu ca mbokk ya ñu doon ma ñàkk na alalam kon ñàkk na jëmmam ca bam faatoo ñàkk nay bokkam ca bañ ko waajalee ba noppi ñàkk na alalam ca ba muy dugg ci biir bàmmeel lu fa des jëfam nee foofu la jëf jay waxanteeg moom lu ko jëf jay wax yaa ma jëfoon de su dee lu baax yaa ma jëfoon bu dee ab safaan yaa ma jëfoon nee na moo tax jëf mat a sellal ndax mooy dëkkandoo bii mu jege sa biir bàmmeel wax juju la sëñ yu Mbacké doon jëmmal ca wax ja di wax ne nit ki amul lu may ñaari biir biiru boppam ak biiru bàmmeelam biiru boppam bu mu ko yitteel ndax li ci war a nekk yàlla ko ciy def biiru bàmmeelam na yitteem ndax lu mu fa deful du ko fa fekk mbokk yi gis ngeen ndénkaan bii doy na sëkk ay bind ndénkaan bi lëmës na ci mbooleem lu alquran di jàngale ndax alquran minal bidaaya ila nihaaya weesuwul topp ndigal bàyyi tere ndénkaan bi ku ko dégg na ko war a déggee da nga daal di xam ne li yóbbu say maam yóbbu say baay du la fi bàyyi li yóbbu nit ñi du la fi baax kenn ku ne sa diggay mat nga dem sa dig dana mat nga dem yow looloo nag bu ko nit ki xamee dana pëste góor góorgóorlu sëñ bay jaxate la mu waxoon lu dul ne ñokket rek ni wakket da di ngërëm kat gaa yi du mbir kat dégg du jekki day xëy di songe di gonti songe te ku ko gis rët du ñe mukk du fandi mukk du ñàkk a lekk tey xëy di gis nit ndaw ñaa ngi koy daw mag ñaa ngi koy daw ñëpp a ngi koy daw te ñëpp lay jot ku mu jotul tey jot la bu dul tey ni la watoo kay bul gëmm say bët dégg nga la daa xew te xam li fii si xew xam li façon xew gaawal fexe set de dee kenn la lu baax donte dafay baax yónneen ba baax kay ji aw nit dee fob na sa maam bopp dee na say maam fob maami say maam ba amatoo maam dana la fob it dee kenn la dul baax donte dafay baax yónneen bi lay baax kay ngeen ji aw nit gaawal am yow ngërëm aku yiw tabax fi nag jaw faw ak bari jot mooyul bari jot ngir ku bari jot kenn la dul jot te ñëpp a koy jot ku bari ak jot fee ko gisee bët na nga ne te pét seytaane saakat bu ko dawee xel dawee ko am xel ngir ko dawee xel mu sànni law yàpp ginnaaw adduna nii lay doxe tey lii yóbbu nit ñi du la fi bàyyi da nga njëkkanteeg moom bala mu egsi dégg ko ci ndinkat bi ba ku fi jóge sa pëstéef nga jëme ko ci yàlla lu am solo la xam nga ñu baax ñi bokk na ci seen màndarga bu ñu daan jàngale bokk na ci li ñuy jàngale mooy foo toll ngay fàttali ko dee sam xel du ci jóg mukk bis bu set nga jàpp ne léegi mu egsi ndax moom buy ñëw du tàggoo day jekki-jekki ne xoneet egsi buy ñëw du tàggoo comme buy ñëw du tàggoo nag nan ko waajal bala moo egsi alquran a ko wax alquran nee na id yatalaqa almutalaqiyaani an ilyamini wa an ilchimali qaid maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid at وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد duma ci mucc du ngeen ci mucc kenn du ci mucc yàlla woyof lii yóbbu nit ñi du la fi bàyyi kon waajal ko bala mu egsi am na koo xam ne buy egsi fam koy fekk fu baax la ndax da organiser dundal lu baax rek lu baax lu jeex mu dugg ko duggaat ci lu baax ba lu baax loolee fekk ko moom bu dee gi ñëw ci lu baax la koy fekk kon nit de day organiser dundam lépp lu muy bañ dee fekk ko ca na ko bàyyi ndax buy ñëw du tàggoo am na koo xam ne bu dee gi ñëw par la force ci lu baax la koy fekk ndax yu baax la organiser dundam bu baax bu jeex mu génn ko duggaat ci bu baax kooku bu faatu ñëw ci lu baax la koy fekk am na koo xam ne it bu bayul la muy nekk saa bu dee gi ñëw ci lu bon la koy fekk ndax ñi mu organiser ma baaxul lu bon lu mu jeexal génn ko duggaat ci lu bon ni mu organiser moo baaxul yàlla nañ ci yàlla musal am na koo xam ne bu dee gi ñëw mën na koo fekk ci lu baax mën na koo fekk ci lu bon waaye ku déggal sëriñ Tuubaa ci mbindam bu dee gi ñëw fekk la ci lu baax sëriñ bi nee na woon fa in takun akila risqillaahi wa anta fi kulli zamaanillaahi wa lam tatub li talabil gufraani mujtahidan fa daaxilun niiraani sëriñ Tuubaa nee na soo fi nekkee di lekk wërsëgu yàlla yu guddeeg bëccëg yàlla dee jox looy lekk ngay lekk yàlla joo wax looy naan ngay naan lépp loo soxla yàllaa ngi la koy defal fa in takun aakila risqillahi nga boole ca mboolem lu la yàlla sant nga di ko sàggane wa anta fi kulli zamanillahi te jéemoo ko tuub génn ci la nga nekk dabaatal ko kii dundee noonu te bàyyi ko na ko leer naññi ci ne koy tàbbi sa war a wax walam tatut li talabil gufraani mujtahidan fa daaxilu niiraani kon nit ki bu déggee ndénkaan bi dana bàyyi xel ci ne fa moom jeex na sa dund gi nga organiser ko ndax ñaari ñaari yàlla ni mu lay ni mu la ni mu la booleel mooy ñaari malayka yoo xam ne ñoo la séq dara du ci rëcc loo def ci lu baax ñu ngi bind bu lu bon lu nit ki def ñu ngi koy bind dara du rëcc dara du rëcc malayka yuyu bu yowmal qiyam jotee la nga bindoon téere yi day tasaaroo kenn ku ne sëb téere ngay capté ku defoon lu baax téeréen ci loxoom yoo am la koy capté yàlla nañ ca bokk ku jëf lu bon it ci loxob càmmooñam la koy téye yàlla nañ musal alquran a ko wax alquran nee na wa kulla insanin alzamnaahu taa'irahu fi unuqihi wa nuxriju lahu yawma alqiyaamati kitaaban yalqaahu manshura iqra kitaabak kafaa bi nafsika alyawma alayka xasiiba bukki wiiri wiiri comme bukki wiiri wiiri jaari ndaari lu yóbbaale ndaari na nekk dëgg kaari ndax ndaari ñëpp a fay jaari te ndaari mooy kanam yàlla sa sa jëf jii ngay jëf dees na la ko wanaat ëllëg xam nga nii waa ji di jële lii lépp day théâtre ëllëg yomal xiyam gis nga waa ji lii muy jël nii di ma jël nii fi ma toog di leen jël yéen ñi toog su ko liggéeyee ba noppi ñu teg ko ci télé yi di ko seetaanaat lu waay defoon ci jotaay bi dafay feeñ lu way soloon dafay feeñ lu way doon xoolee dafay feeñ exact la lay théâtre yowmal qiyam yowmal qiyam yàlla ngi la monteel ay appareils yu sensible la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha alquran ko wax dara du rëcc ëllëg ñu ne tay film bi ne diw film diw sàngam la ñuy wane dama ne fii ci fii ci dagga sàmb ku fi defoon loo xam ne daf dañ koo nar a weer waa dëkk dagg sàmm bépp daje gàcc na la rey waa naka moo nag bis boo xam ne doomi adam mi yëpp ñooy bokk daje ci benn barab alquran ne xaa an saf-safan latratia iwajan wala am ta barab bu tàlli ñayi ratax bandang amut fu benn guuse amul fenn fu nit di làqutu min aadama alayhi salaam ila axiri man walida tàmbalee ko ca aadama ba ca ka a juddu ño ba ba ca ka mujj a juddu ñoom ñëpp ñooy bokk daje ci benn barab ñu ne film diw la ñu wane yawma tubla sarair bis bi ñu weer sekkare yi hmm? bis bi ñu weer sekkare yi te fii sax film bi tane na film bii ñu wane nii buñ ko tegee ci tele bi mën ngaa yor sab jumtuwaay bu ñuy tuddee command bu amee lu nar a feeñ te neexu la mën ngaa bés mu ne war ba weesu nga door a bësaat di seetaanaat yawmal qiyaam nag benn borom xam-xam day firee ne bu ne yawma tubla sarair bis bi ñu weer sekkare yi am lu nar te bëggoo mu feeñ boo ne ana bi mu ne la fa maa lahu min quwwatin wala nasir fii ab kumaan amu fi comme bañoo woon ku koy ku bañoo woon ko maanaam yaa ko doon def bañ ku ko gis yal nuñ yàlla sàng sutura sutura si yàlla la ñuy ñaan rek yàlla nuñ ko yàlla sàng waaye lu waay di bañ ñu wan ko ko ëllëg bu mu ko def te góorgóorlu bu baax a baax dénkaan bi dégg ci loolu waaye dénkaan bi dégg ci it ne dëkkandoo bi gën ci dëkkandoo yi mooy sa jëf gis nga jëf jëf mooy dëkkaloo jëf rek a takku jëf moom ngay fekk sa bàmmeel xanaa xamoo ne sëñ Tuubaa jàngale na bàmmeel boo demee ci téeréem bi ñuy wax mu la ñu sudóor bàmmeel ñetti bàmmeel am ñetti bàmmeel bàmmeelu yéefar bàmmeelu nafiq bàmmeelu jullit ñetti bàmmeel yi doo am moo tax yonent bi tënkoon ko ci bàmmeel boo romb dafay nekk rawdatu min riyaadil janna aw xufratun min xufarin naar bàmmeel boo romb dër la ci dëri àjjana yi wala mu nekk am pax ci paxi sawar yi bu ne dër la ci dëri àjjana yi bàmmeelu jullit moo ko tax di wax bu ne pax la ci paxi sawar yi bàmmeelu yéefar wala naafeq moo ko tax di wax yàlla ñu ci musal sëriñ bi ki dugg ci bàmmeel bu ñu koy laaj su dee ñaar ñii di ab yéefar wala muy naafeq bu ñu koy laaj du mën a tontu day mel ne mbaam muy ŋaax in kaana kaafiran qulaw munaafiqa yasir mulajlijan ka ayrin zahiqa noonu la ko sëñ bi waxee day mel ne mbaam muy ngaax ha ha ha la adri ñu ne ko yow xamoo te jàngoo nga dégg ci ne ko xamul daa war a jàng de xamoo te jàngoo ñu yedd ko yedd yu métti sëriñ bi ne fi yeddi kullin minhuma fi ma sabat miqmaatun min alhadidi saqulat kenn ku ne ni ngi yor ak weñ li ñu tudde bolde dañ ko koy dóor ba mu daggatoo ba mu meew ma nampoon ci yaayam mu yàbbi ko yàlla nañ ci yàlla musal kooku mooy bammeelu yéefar kooku mooy bammeelu nafiq waaye bammeel bii lu mu naqari naqari bammeelu jullit neexee na ko suñ tubaab nee bu dee bammeelu jullit yàlla nañ ko yàlla defal koy denc ci bammeel bi bu ne yulub ci bammeel bi ña ngi koy tatagal lu ñu ko wax yaa ayatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan fa fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati yàlla nañ ko yàlla defal day dugg ci bàmmeel bi fekk fa ku taaru lool rafet lool di xeeñ lu neex mu ne ko ma yow mu rafet mi yaay kan mu ne ko may sa jëf ju baax ji nga jëfoon foo jëm ñooy ànd yàlla nañ ko yàlla defal waaye léeg-léeg nit kooka mooy bàmmeelu jullit su duggee ci bàmmeel bi dañ koy yaatal ba fa gisam mën a yam ñu ne ko tëddal ñu leeral ko comme leeru gu weer ñu ne ko tëddal nelaw comme nelaw yi séet noonu la ko si bi jàngalee yàlla ñu ko defal kon njënkaan bi dégg ci ne la ngay da ngay da ngay dem te la ngay fekk sa bàmmeel yaa koy liggéey ëllëg yomal xiyaam da nga fa gis koy sarxolle ci àjjana te yàlla nañ ca bokk la tax muy sarxolle ci àjjana fii la ko liggéeyoon da gis kuy salleeru ca sawara yal nañ ci yàlla musal la tax muy salleeru ca sawara fii la ko defee woon kon dénkaan baa noonu yal na yàlla may nu dégg aku topp mu des nag tomb bi njëkk ci waxtaan wi mooy ban société la sëñ Tuba andi woon mbokk yi nañu teewlu bu baax a baax mën naa ne lii xew ci jamono jii ba lënd réew mi jaxasoo beeg fitna yeeg rey gu bari geeg yooyu yëpp diglu bu baax ndekete yoo ñu baax ñu àdd woon nañ ci bu yàgg ndax yàlla moom dafa rëdd ay liiñam yooyee mu rëdd ku ca jaar yàlla nee na li ma rëdd ku ca jaar jàmm rek ngay am waaye ku ko wàcc nag fitna rek ngay dajeel xool leen nag ndax lë rëdd yooyu yàlla rëdd ñun ña ca kaw wala déet société bi sëñ ba indi woon ñu ngi koy fekk ci téereem bi ñuy wax matlabu sifa yi matlabu sifa yi xam nga dañoo dégg naa ci mag mu wax ne bi sëñ fi sëñ bi taalifee muqaddamatul xidma fi salaati wa taslim ala muqimi sunna muy da muy téere boo xam ne salaatu ala nabi la bi ko sëñ bi taalifee ba noppi dafa yëg ci yaramam ay diis diis moo tax mu taalif matlabu sifa yi nee nañ sax Matlabu Sifa yi bi mu koy taalif sëñ bi bi muy wax soxna aw Bousso moo ko doon bind di waajur sëñ Fallu ci biir Matlabu Sifa yi diglu la ci sëñ bi waxoon sëñ bi nee na woon ci Matlabu Sifa yi waj'al qulubana ala tawaadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaxudin wala tanaafuri xatta nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin société baa ngi noonu benn par benn sëriñ bi nee na sama mbooloo mbooloo mi ma bëgg muy sama mbooloo te sëñ buy wax nag jullit yépp la ëmb ndax sëñ Tuubaa bi ko kayu tudde boppam borom ndar ba mu ko laajee nag ñuy sa njaboot dane al mu'minoona al muslimoona al muxsinoon kon ku nit jullit rek ci njabootam la la boole dama ma déggee ñu naan ci comme si si Muxtaar li ma waxoon ne bëgguma koy dégg Tijaan ak Murit fekkoon na mag ña jëmbatoon ko Alhaji Malick Sy radiyallahu anhu bindoon na sëriñ bi ñaari bayit boole ci hadiya foofu lañ jëmbati woon cofeel ga ndax moom dafa bokk sëñ bi waxoon ci bayit yi ne ko hadiyati moo ji bu hajtilaabu mahabbatin yaa ayyuhal lubaabu adaama rabbuna al ali habla wisaal yaqi lana charra alladi aada wasal loolu Cheikh Sidi Alhaj Malick si moo ko bindoon sëriñ bi ci wolof dana ko sama addi ji li ko waral mooy sàpp sàkku ci yow ak cofeel ku ko set ittila bu mahabba sàkku ci yow ak cofeel yow sama soppe bi yal na yàlla saxal adaama rabbunal ali habla wisaal bu mu jokkoo gi jaar sama digganteeg yow yal na ko yàlla saxal yaqinana charra alladi aada wasal yal nañ yàlla tegal ayu ku yàq ayub noonu moo xam noon buy jëf la moo xam noon buy noon buy wax la aada dafa noonoo wasal wala mu song xoolal sëñ Tuubaa ba mu koy tontu fi nafsi alqaafiya fi nafsi rawi mu tontu ko jazakumu xayral jasal wahaabu wa fi safal widaadi laa tartaabu fa kayfa laa wal mustafa almujaabu imaamuna wal qitla la nahaabu yàlla na yàlla fay la njëkk ngeen di fay yow Cheikh Sidi El Hadj Malick Sy cofeel bu ngay laaj sama digganteeg yow nag bul sikki sàkk na cofeel gi mi ngi fi mu ne ko nan laa lay bañ a bëggee yow El Hadj Malick nan laa lay bañ a soppee te benn imaam lañ am muy Sayyiduna Muhammad kon mënu ma la ñàkk a bëgg foofu la mag ñi nekkoon kon diggante sëriñ bi bu ñaan dafay ñaan pour société bépp yaa yaa maalikal mulki yaa man jalla an kawadin irham jamii al kon moom message am daf ko lancé ci mboolem société bi ëmb ñëpp jaboote ñëpp nag teg ci sëriñ bi ne kon yàlla na nga def suñu xol ñu soppante ala tawalu bi soppante te yàlla tax bëgg te yàlla tax yombut li ëpp ci bëgg yi boo ko jam càmbaree yeneen a tax mu bëgg bëgg nga nit ngir alal bëgg ñu nit ngir dara ji jooy sopp sàkku ci moom waaye bëgg te yàlla tax luy jafe moo la gën a jafe bëgg te yàlla tax sëñ bi nee na woon wa an yuhibba lil ilaahi dil anaam shaxsan wa yubxida lahu laa lil xutaam nee na nay bëgg nit te bu koy bëgg na ko bëgg te yàlla tax wa an yuhibba lil ilaahi dil anaam shaxsan buy bëgg nit na ko bëgg te yàlla tax wa yubxida muy bañ shaxsan jëmit lahu ngir yàlla booy bañ nit nga bañ ko ngir yàlla laa waxuma ngay bëgg nit lil xotaam ngir poñitum àdduna laa waxuma ngay bañ nit lil xotaam ngir poñitum adduna kon booy bëgg nit na ko bëgg te yàlla tax sooy bañ nit na nga ko bañ yàlla tax bëgg ngir yàlla ko gën a jafe wajal qulubana ala tawadudi yàlla nga def suñu xol ñu soppante te yàlla tax xoolal taxawal foofu gis nga buñ soppante te yàlla tax kenn du xëcc dara te lu way di xëcc nga bàyyeekoo ak moom ndax lu sa mbokk am day mel ne am nga ko bëggante dañuy yéenante yiw dañuy yéenante njariñ sa mbokkum jullum am rek mel na ne am nga ko bëggante te yàlla tax bu amoon xuloo du am béejo du am xeex du am ba bakkan di wadd ndax bëgg te yàlla tax bu amoon nit yonent bi jàngale sallallahu alayhi wasallam ne ñaari jullit yu yenu jees yor ngànnaay kenn ku ne am yéene moroom ja ba kenn ka rey morom ja ka rey ak kañu rey ñoom ñëpp ña nga sawara ñu ne ko yow yonent bi ki rey xam nañ li ko yóbbu sawara waaye ki ñu rey lu ko yóbbu sawara mu ne waawul li ko yóbbu sawara mooy amoon na yéene ci rey mbokkam mi da ko caa jiitu kon bëggante te yàlla tax bu amoon dañuy yéenante njariñ gis nga gis nga ay nit suñu yéenante wut aw yiw léeg-léeg yàlla da leen koy xañ ñàkk yéenante yiw day waral ñu far leen xañ yiw wa xoolal ñett daañ ci daa ci nett ñetti kaa cas bu njëkk bi mooy daa am ñetti nit ñu àndoon daa di for da daa di for alal maanaam suñu borom wërsëgale leen alal pour ma wan la ne ay nit buñ bëggantew teel a tax duñ yéenante aw yiw te ñàkk yéenante aw yi day waral suñu borom far leen ko xañ yéen ñëpp suñu borom defal leen ak xéewal muy alal ñu ñëw ba ci barab xiif daal di yebal kenn ci ñoom pour mu dem ca dëkk ba jënd luñ lekk waaye dem ca dëkk ba jëndi ba mu demee ñoom ñaar ñu waxtaan seen biir ne bu ñëwee nañ ko rey ngir seddoo bi gën a doon suñu diggante ñun ñaar xam nga ñoom lan nañu ay pexe gën a waaj pour bu egsee ñu rey ko ñu doon ñaar séddoo ko waaj it ba mu demee jënd ñam wa ba noppi daal di naa ci def tooke. su ma demee ñu nekk ko dee pharmacie ma man ma far jël ko man dong ba waaj ak seen ñaari ña daal di koy attaqué rey ko bi ñu ko reyee jël ñam ba lekk de ñoom ñëpp dee nañu àll ji ne xew yu xoole lu leen rey ñàkk yéenante aw far ko ñàkk ñoom ñëpp ay jullit bu yéenantewul aw yiw suñ borom xañ ne keneen a ngi nii ñe ñeneen a ngi nii qissa bi rot na ci alquran ci suuratul qalam muy asxaabul janna asxaabul janna alquran day nettali ne dafa amoon génn góor góor gi mi ngi dëkkoon ci pegg capitalu yaman muy sanaa góor gi nag dafa amoon alal yor ay tool tool bi di meññ waaye am nañ njaboot nag góor gi bi mu jëmee ci mag njaboot gi gis nañ ne xaj na lii seen bàyyi di jox ndax góor gi tool bi lu ci meññ dana génne ak miskin yi jox leen ko dawut tee maanaam dawut tee ak miskin góor gi nag daal di faatu bi mu faatoo at ni mu faatoo tool bi da caa meññ meññ meññ gu mag a mag gone ne góor gi daal lii mu doon joxe di ko jox miskin yi dafa naag dong kenn du fi joxati kenn tus xalaas ñu bokk daje nag diisoo daal ne buñ xëyee nañ daal di gaaw teel a jóg góobi tool ba allah yadxula nahal yawma aleykum miskin man na ngeen gaaw a teel a jóg yetta xaafatoon di wakkaate eh gaaw gaaw gaaw jóg leen bëgguñu miskin yi jóg leen bëgguñu miskin yi yëg leen ñuy ñuy wakkaate ndànk rek ngir bëgg ngir ngir bëgg buñ buñ teelee xëy góobi tool ba balaa miskin yaa egsi yàlla nag ci kàttanam yàlla xëy ba ñu diisoo ne dañuy góob tool ba xañ miskin yi yàlla yabal ca tool ba aw sawara mu lakk tool ba ba mu ñuul kukk tool ba mujj mel ne guddi gu lëndëm këris lakk tool ñu xëy nag daal ni xëy leen boog aniq doo ala harsikum in kuntum saarimin bu fekkee da ngeen di góobi jaar ci yoon yi konnam konnam yi ñëw ba jàkkaarloog tool bi mu ñuul kukk ñu ne innaa la daal loon dañoo jaawale yoon yi mbedd yi ci boppam lañ jaawale lañ <laughs> jaawale wu leen yoon wi waaye bañ xoolee xoolaat xoolaat xoolaat ñu ne bal nahnu mahrumun jaawale jaawale wuñ ko de yàllaa ñu xañ tool bi fekk na amoon nag kenn koo xam ne ba ñuy diisoo andu ca woon waaye dañ koo dóor-dóor yi métti mujj ànd alam aqul lakum lawla tusabbihun waxoon naa leen ngeen def istisna ci seen wax leen bu soobee yàlla waaye gis nga li yàlla dogal kon gis nga ñàkk a nit aw yiw dana waral yàlla far la ko xañ ki ci mujj kooku it ñëw na ci alquran muy xaaroona xaaroona ci nit Muusaa la bokkoon yàlla da ko joxoon alal joo xam ne mosuma dégg ku yor alal ba egg fa mu eggoon alal joo xam ne caabi alal ji rek ay ponk la ko yëkkati ma inna mafaatixahu la tanoo bil usba quwa maanaam maanaam caabi yi ay ponk la ko yëkkati xaaroona nag ña daan wax ak moom bu daan wax ak moom yëg sa bopp baaxul yàlla yàlla musa ci yëg bopp gis nga nit loo mën a yor paluk addunaak alali dara darajaak sa boo yëgee sa bopp yàlla nee na ko fàtte la la fal la lay folli sëriwu la buñ ko daan wax dane ko wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ilayk loolu lañ ko daan wax dëgg la mën ngaa jël li nga soxla ci adduna waaye nag njëkk gi la yàlla defal na nga fay njëkk gi ko bu amoon tawfiq day dégg la ñuy wax waaye ñàkk tawfiq ga lu mu ko jural xam nga lu mot lu mu tonta innama utituhu ala ilmin indi bu leen ma fontoo li ma yor samay pexe ma ko may <laughs> bu leen ma fontoo li ma yor sama pexe ma ko may léeg-léeg borom alal di ko def na te du ko yëg léeg-léeg lu lu xëyoon a tontu léeg-léeg nit di ko def te du ko yëg nag ndax man ngaa yor alal say bokk kenn ci yow ñëw fa bu waxee ba daane loo koy tontu. da ngeen war a liggéey nag kon yow nee nga liggéey joxe alal kon yow nee nga liggéey joxe alal liggéey joxewul alal de bunt la ci day buntu ci am alal dong ndax kenn sëñ te ñaan yàlla saa koy xaalis yu wàtt na but but ci kaw su yàlla bu lay may xaalis ci liggéey la koy jaarale waaye liggéey du joxe alal liggéey bu doon joxe alal demal ci marché bi da nga ñi ci gën a diis lu ñu yanu ñoo ci gën a néew lu ñu fayu ñu nekk ci barab boo xam ne kilim du fay mukk ñoo ci gën a bari lu ñu fayu kon liggéey joxewul alal bunt la ci kon naan ko da ngeen war a liggéey yow kon nee nga liggéey la jox alal alal yàllaa koy joxe yàlla na fekk ci askan koo xam ne gënewu fa lenn yàlla sédd lu bari am koo xam ne gënewu ko lenn te yàlla du ko jox dara yàlla woo huwa xayru raziqin laa yusalu amma yafalu wa hum yusalu ndax lan mooy faalu li ma yurid kon liggéey joxewul alal kon xaaroo na li mu tontu léeg am ñu koy tontu nag yow bu buñ sàkkoo ci yow dara nga sant yàlla bu baax a baax bila yàlla boolee ci ñuy dimbale te boolewul ci ñi ñi ñuy dimbale loolu foo nga war a foo nga war a sànni sa xel waaw mu ne ma utituhu ala ilmin indi bu leen ma fantoo ci waxin li ma yor samay pexe ma ko may alquran daal di addu awalam yaalam an allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa man huwa ashaddu min quwwa wa aksaru jamaa xanaa xamul ne am nañu ko fi jiitu woon ñoo xam ne ba bañ yëgee seen bopp lañ yor dañ ko ñàkk waaye gis nga xaaruna bu ma san génn ñaari bëti ko daan xool bëti wa adduna ak ña nga xam ne seen i bët ña ngi ko aj la nekk fa yàlla ñi yor bëti adduna bu ma san génn lu ñuy wax yaa layta lana misla ma utiya qaarun innahu la du xasdin azim aka neexoon ñu am li qaaruna am moom kat boroom cër la kat waaye ña nga xam ne la nekk fa yàlla lañ teg seen bët luñ leen di tontu way lakum sawabullahi xayr la nekk fa yàlla gën xaaruna fu mujj fa xasafna bihi wa bi daarihi al ard dafa ma baxal suuf sa ca kawam ku fàtte la la fal la lay folli sëriwu la kon ñàkk yéenante yiw dana waral suñu borom xañ leen la ngeen yor kon wacca alkuloo bana ala tawaadu buñ soppantee dañuy yéenante aw yiw buñ soppantee duñ xëccoo daraja xëccoo daraja gën a jege dana jur lu ne dana dugg ci kër néegu sëy ay soxla yu nekk ci biir néegu sëy di sëy bëgg xëccoo gën a jege dana waral ñuy def lu neexul yàlla dem ci maamam kuy wax na daa man te mënul tus yàlla rek a man def la muy def fasal ma sama borom kër gi ci sama la fa kumba lu ma wax na lu ma wax na ne waaw góor gi yagar yagar yi sëgg naa taddu ta taddu maanaam taddu sago nga ne xew yi xoolee yaa ko def de yaa ko def lu ko waral xëccoo dara ja man dégg naa fi kaa boo xam mosuma ko dégg ki ma ko nettali yaakaar naa kookaa ko nettali nee na génn jigéen daa ma sëyee ci moom ne ko daaw bëgg nga reyal ma sa borom bi reyal ma saa borom kër la ko wax dama bëgg nga reyal ma borom kër bi mun ne ko man ay rey borom kër te teguma fi loolu moom defuma ko nee na mu ne ko waa yow sax lu tax nga bëgg koo rey mu ne ko dama wutal dama wutal wujju dama wutal wujju na dee <laughs> ah neen neen waaja gëj koo gisub diir gëj koo gis ab diir mu dajewaat ak moom ci barab ne ko waaye gëj naa la gis ana foo kon mu ne ko dama doon nuru rey na ko bu yàgg ndax dem na ca kee mu gànnu mu dem ca keneen mu defal ko la mu bëgg rek rey na ko bu yàgg jigéen ñi nañ ragal yàlla jigéen ñi dañuy dee de baax na kon xëccoo daraja mooy waral bëgg xëccoo gën a jege dana waral maanaam loo wàccal ba bana ala tawaadu yi kon bu ñu bëggantee lu ñu xëccoo dara loolu dana ko waral waaye xëccoo daraja it dana waral nga am loo xëccoo ak nit mu ne man man daal lii ñuy xëccoo na na tegu ci sama loxo moom daal su ko naree jot na dee muy muy dem ci diw liggéey diw ba du ànd ak sagom loola dana yóbbu sax mu ne ko yow nga nga dem ci maamam maamam ba ne li ma bëgg mooy andil ma dereeti gone gu amagul bàkkaar astaghfirullah benn waay liñ naan yàlla nañu yàlla defal tawfiq xoolal nga gis benn waay boo xam ne day ñàkk liggéey amul liggéey ci Sénégal soxla million yu bari nga ne ko mën naa la jox fukki million de fukki million nga ne ko waaw nee na mu ne la mu ne la ci naka nga ne ko andil ma dereeti mu ne ko loolu sax duma ko misaal sa bopp waaye mu ne ko andil ma dereeti gone gu amul bakkaar waaye fukki million waaje fukki million ca loxoy waaje daw tax na mun a deq doomi jàmbur taatan deret ja taatan deret ja ngir lan fukki million xoolal xoolal rey bakkan xoolal rey bakkan ni mu diise yàlla li mu wax ci bakkan waxu ko ci benn maanaam bakkaar bakkaaru rey bakkan li ci yàlla wax waxu ko ci benn bakkaar waxu ko ci benn bakkaar yàlla ne ku rey bakkan ta tey ko sawara jëm li may wax bu bu dégg may wax rek nga ne waaj daa iñaan déet wax yàlla lay nettali yàlla ne fa jasa uhu jahannam lu ci diis yaa yaag yàlla du ma yow yàlla ne ne ku rey bakkan tey ko sawara la jëm te dafay béel te yàlla rëbb na ko te mere na ko te waajal na ko mbugal mu tar loolu la ko aay du waxe mu ne deq doomi jàmbur ngir taatan deret ja ngir fukki million mu mel na bis da ñëw ñu tegle ci kaw jaat yow nga dem yomal xiyaam jàkkaarloo bakkan booba looy wax dem ci nit liggéey diw ngir palaas bis ñëw nga faatu fekke ko yal nañ ci yàlla musal lu koy indi wàcc al qulubana ala tawaadudi yal nañ soppante soppante woon te yàlla tax duñ xëccoo daraja ba muy egg foofu buñ soppante woon te yàlla pal ba mu ñu yóbbu ci yenn yi wàcc al qulubana ala tawaadudi waaye xoolalam ca teg bila tanaazu'in far sax sëñ bay détaillé ñàkk a soppante la muy jur nee na bu ñu soppantuwul xëccoo la indi ndax kenn du yéene kenn leen man daal maa fi nekk àll bi te lii mbir mi na tegu sama loxo waaye wala ñëpp ñàkk loolu du ci ko jullit jullit ni mu war a mel mooy ñu baax ñi niñ doon yare xoolal bu waxtu julli masaan jot dañ koy jañaxante kii naa ko doxal mun naa ko doxal loolu loolu ñu baax ñi noonu lañ daan def te ñooñu ña ko royee ca saxaabatul kiram saxaabatul kiram ñoom dañ daan ëppalante way usruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ñoom dañ daan ëppalante ba ci bakkan sax bakkan la wa de déegu xonq coy nga deel sa mbokkum jullit moom mu dund am na xoola xare bi amoon ba ñu ba ñu sa kenn ñenn ci jullit ñi am ci koo xam ne mbokkam ñëw na fab ndox di ko waaje jox bi mu laata jëfandikoo ndox mi dégg mbokkam di ngir mu mar mu ne jox leen ko bu naanoon sobewu de bu naanoon bakkanam bakkanam sobe mu ne jox leen ko ko muy dem ca di ko ko jox mu di ko waaj a jëfandikoo déggaan mbokkam muy yuuxu mu ne jox leen ko ñu dem ca ko mujj ko fekk fu mu faatu ñëw ci ku ñaareel ki fekk mu faatu ñëw ci ku njëkk ki fekk mu faatu ñoom ñëpp a faatu ngir lan kenn ku ne mi ngi gën a yéene ak dund mbokkam foofu la saxaaba yi nekkoon as-saabiquuna al awwaluuna min al muhaajiriina wal ansaar ku mun ta egg foofee nag mënoo joxe sa bakkan alali adduna ji doon waaye nag weñ njànga bañ a ca mbanjaxaan nga gis nga doon mbir mi yëpp problème éducation la ndax gone ki jur doom jàngal ko yar ko jaarale ko fa ko war a jaarale wan ko ne ko da ngay faat wan ko ne alu adduna du alu alali adduna du tus ba loola sax ci xelam ki nga ki nga tàggat ci loolu ku andi woon fukki million di ko jox ngir rey bakkan dana la weej waxuma la waxuma la di ko gàntu waaye dana la weer ba ñëpp dégg ndax ya ba baax xoolal kii lim def kii lim def bu ko Sénégal yëpp doon def Sénégal jub benn waaye day ñëw ci moom ñu ko moom léegi waa ji waa day liggéey kànkayir la mu ñëw ci moom jël ay jël ay bagage ba noppi bagage yi masalan bu fekkoon ne bagage cinq cent mille la waa ji dane ko defal ma ci facture bi ne un million laa jël ci yow xoolal googu na fekk maanaam moom li mu jël ci bagage masal bu doon cinq cent mille mu ne ko bindoo ma ci facture bi ne un million laa ci un million laa ci jël bi mu waxee ba daane waa ji ne ko jox ma samay bagage jaayatuma la jox ma sama alal jaayatuma la jógal fi xoolal loolu maanaam cinq cent mille yu taxaw nga mën koo ñàkk ngir sanctionné waa ji bu ñëpp doon def noonu Sénégal jag hmm? waaye na ñoo xam bu doon seen yoon nekku ci dimbalante ci na fekk la ñuy def rek tampeel ko ay million te cinq cent mille la jël pour wan la ne maanaam ñu baax ñi dañ daan gënalante ci lu baax waaye ki nga yar tàggat ko def ci moom jikkoy lislaam ku ko bëgg a xobe alal doo ko jàpp yow ne ko bëgg xobe alal sax ngi def loo ko lu bon dana la weeje ba ñëpp jot ci sëñ moo tax sëñ bi dégg nañu ne mag ñi mas nañoo ñëw ci moom ne ko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 fukki millions yi fukki millions yu teew nii moo tax moo tax alal koo mës sa gis mu yori donj mu xëy yori donj bari koy romb di ko ñee boo xamoon la danga da ko yërëm alal dañu koy ñaq alal dañu koy liggéey waaye gaa yi nee nañ alal kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti man de xom ban lañ ko jàng ñu ne alal dañu koy lijjanti kenn du ko liggéey man kay man sax dama li ñu waroon a waxee mooy da war a wax ne alal dama leen la jël ba am waaye kenn ko liggéey loolu nga waroon a wax ndax boo ne dañ koy lijjanti li nga tudd lijjanti boo léegi dañ koy lijjantiwaat kon kay lu lëj la li nga war a wax kay mooy alal dama leen la ba am waaye kenn du ko liggéey loolu moom loolu moo tawee gis nga alal ku la ko ëppale moo la ëppale xisaab ëllëg ci bu jaaree bu jaaree yoon laa wax de su jër yoon moom mënta wax aw fukk dong koo yor te jaaru yoon dana yore milliard te milliard yëpp benn jaaru ci yoon ndax yowmal xiyaam kenn du séq jéego te laajul la te lañ lay laaj da caa bokk sa alal ji foo ko faggoo ba nga ko faggoo bam lew foo ko dugal ah kii yoru dërëmam ko bu ñëw ñëw borom dërëm bi mu ne oh ñu ne foo jëlee sa dërëm bi mu ne barab sàngam ñu ne ko foo ko dugal mu ne barab sàngam dem na yoonam ki yoru fukk nag moo fay gën a yàgg borom dërëm ba ka yoru téeméer moo fay gën a yàgg fukk wa ka yoru moo fi gën a yàgg borom téeméer ba ka yorum million nag moo fi gën a yàgg borom mil borom junni ba ka yorum milliard nag moo fi gën a yàgg borom million ba multi milliardaire ba nag ñu ko topp dërëm pët dërëm yal na yàlla sàng sutura te alal kat ku la ko gën a ëppale moo la gën a bëgg waaye yàlla na lew alal bokkut ak wërsëg nit mën naa yore alal mu ne gàññ waaye doom dong la ci jël nag la ca des léegi wërsëgu jàmbur la. sa alal moo moo tax bay ba nga tey ginnaaw moom lu mu bari bari sa wërsëg doon nga ci jël na sell rek na sell rek sell mooy na dagantalew na dagantalew alal mën naa maanaam alal mën naa daganta du lew léeg mu lew ta du dagan léeg lew du dagan léeg du dagan du lew maanaam léeg mu dagan ba noppi lew léeg-léeg du lew du dagan léeg mu dagan ta du lew mu lew ta du boo dama jox ma ci misaal ma ne la sa xarum bopp mi nga jël rendi ko dagan na te lew na daggan na ndax rendi nga ko lew na la ndax yaa ko moom kooku dafa dagan ba noppi lew li dëgganul ba noppi lewut mooy mbaamum jàmbur moo rendi ba noppi ko dëgganut lewut ndax rendi mbaam du tax nga lekk ko lewuti ndax moomoo ko li dagan mooy xarum jàmbur moo rendi dagan na ndax rendi ko waaye lewut nag ndax moomoo ko li lew te dëgganut mooy sa mbaam mi nga rendi rendi nga ko mooy lew na la waaye dëgganut ndax doo ko lekk alal dafa war a dagan ba noppi lew alal bu dëgganut lewut dana yóbbi boppam fi borom na ëllëg gaa yi na nee nañ fexeel ba am rek boobu mën mën mën naa mujj baax waaw boo tax tabax tabax jàkka joxeel ëddiya doonte dangay dem bitim réew fekk keesu tubaab nga yéen andi baax na dellu keesu tubaab bi nga naan joxe ëddiya yaa dañu caaxaan rek caaxaan rek waaw alal noo ko alal du noo ko amee baax na sëñ Tuubaa diglu bu baax mbindam saa bu lay digal liggéey xam ne baat yi muy jëfandikoo baat yi baat yi saa faa boo ko gisee ci mbindam rek liggéey la lay digal talabul xalaal kasbul xalaal iltimaasul xalaal baat yi lay jëfandikoo bu lay digal liggéey talabul xalaal kasbul xalaal iltimaasul xalaal ak siixa bu bu mu ko mën a tëj wala tamisul xalaala utlubul xalaala dégg nga wa kasbul xalaala maanaam siixa bu mu ko mën a baat yi lay jëfandikoo bu lay diggal liggéey moo tax sëñ Tuubaa lim jàppeeb liggéey mooy mooy sàkku lu lew ndax liggéey moom ci lislaam ci charia islamiyya liggéey mënut a génn ñeenti yi ñeenti yi yu ko génn dañ koy teg fawqa misaani charia xool ba xam dagan na wala daganul liggéey ci lislaam yi lislaam i'tiraaf reconnaître ko du génn ñeenti yi as as as sinaa as ziraa at tijaara al ijaara ñeenti yi mënu koo génn as sinaa mooy jàng sa métier ba mokkal ko di ci liggéey di ca fayu kooku li ci mën a dugg ci ay métier ak tijaara mooy di yaxantu di ci génne alal loolee li ci mën a dugg ci liggéey bari na as sina ziraa mooy wàllu mbay xeeti mbay bari na waaye tam nag al ijaar al ijaara mooy di liggéey fenn ñu lay fay liggéey fenn ñu lay fay wàllu commerce jàng sa métier ba xam ko di ci liggéey ak bi ci des mooy bay kon ñeent yi la islam reconnaître ci ay liggéey mboolem liggéey yi ñu nangu yépp du génn ñeent yi beneen liggéey bu nit di def nag sàcc am na ñu ko jàppe liggéey sàcc sàcc ñàkk xorom xam na aw sa sàcc moom kenn gënu ko dooru fit waaw sàcc sàcc dama wax ne kii sàcc fitna ji mi am pour sàcc dong bu ko defoon bu ko defoon ci lu baax sa am dara yow néeg boo xam ne tëjoo ko ah nga am fitu ubbi ko nag te xamoo looy fekk ci biir xamoo balu fettal bu balu fettal buy jóge ci biir di ñëw sàcc rek fitna kese waaye nag gaa yi sàccatul sàccatul xam nga sàcc li ko tax a tudd sàcc mooy li waa ji def da koy nëbbu waaye gaa yi dañuy njéeméerlu yor seenu 4-4 yor seeni bal yu doy nga leen koy jox ñu la koy jox nga leen koy jox ñu la koy jox benn seeni bal jeex ñu daw wala say bal jeex nga nangu doom kon gars yi sëccatun dañuy njéeméerlu léegi wajaxal ku bilaa tanaasuin kon xëccoo yëpp maanaam xëccoo mooy waral noonoo te buñ soppante woon xëccoo du am xëccoo gu mooy indi yu yëpp ndax xëcc daraja xëcc alal xëcc ak pal xëcc moomeel xataa sax nag xataa sax dugal ci mbënd mi ndax loolu problème mu mbëkk mi laa wax mbëkk mi problème mu jeunesse bi la yootu sa alal alal boo ko xëccoo boo ko xëccee mu dëpp toq toq moo gën yuréet yuréet pëng léeg-léeg nga xëcc dara far doo ko fekke jaaral fi nga war a jaar rek ba am la nga war a am waaye jaar ci risque jaar bëgg a jëm Barcelone far dévier jëm Barsaq te Barsaq ku fa xas dem déviation bi jeex na doo mën a dem si waat oh. kon jaaral fi nga war a jaar rek mooy mosuma gin ku gis ku def déviation dem Barsaq jël si waat moom lu lépp xëcc alal la jaaral fa nga war a jaar bila tanaazu'in bul xëcc dara bu ñu xëccoo dara lu waay di xëcc xëcc kaddu nag xëcc kaddu xëcc kaddu mooy indi xuloo sëñ Mourou Moustapha am na ku ma sa ñëw ci moom ne ko damay xuloo si mu ne ko déet da nga naan damay xul si ndax xuloo ñaara koy def taman du ma wax xam xam xam booy wax te kenn tuntuwul da ngay xul doo te xul mënee si ñoo dëkk sax léegi ñu nekk xeexaa ci daa daa des ak mat ku kon bi laa tanaasu in bu ñu xëccoo wala taxaasudi xëccoo ma indi iñaanante iñaan yàlla nañ ci yàlla musal gis nga iñaan société bu mu dugg yàqu ko iñaan ku ko yàlla nattoo ba yow ba nga a faju ji gis nga ko iñaan du jëriñoo lu baaxam ëllëg ni sawara di lekke mat noonu la iñaan di lekke aw yiw jaamukati yàlla boo mën a doon boo ca boolee iñaan na la leer nañ ci li ngay def ci lu baax iñaan nga koy lakk lan mooy iñaan am na lu mu nirul nag mooy ñee ñee bokkut a iñaan masalan tay ñaar am ñaar ñuy xëccoo dara far am ku koy ku ko ca yàlla jox ki ko doon xëccoo moom def ci xelam na bu sañoon moom moo koy am loolu du iñaan ñee la loolu du iñaan loolu xam na koy jege waaye du du day ñee waaye du iñaan lii nii boo sañoon yow yaa koy jot loolu du iñaan iñaan mooy lan mooy lii mu am nii su sañoon soo sañoon mu dee du ko muurloo kooku da nga iñaan moom ku bon nga waaw ah. wala boog ñu war koo décorer suba nga ne aka neexoon mu siburu ci suba ji ba du ñëw ku bon yow yaa loolu iñaan la moom iñaan mooy sa mbokkum ji lu mu am lu baax nga bëgg mu ñàkk ko bu iñaan donc dafa doy sikk sikk waaye sëñ bi ñaanoon ne wala su di bu ñu iñaanante jokkalante iñaan kenn ku ne na yéene mbokkam jullitam lam am suñu ko yéenante woon su boobaa kenn mën na ba a tëjooti tëjooti borom bitig bi bu bay jaay ba waxtu julli jot bitigam noo la koy bàyyi dem julli ji ndax ku fi romb rek ni mu yéenee boppam am noona la yéenee am ni ragalee boppam fitna noona la ragalee fitna ni mu bañee boppam al alalam réer noona la bañee sa alal ni mu bañee yu sàcc alalam moo tax du sàcc sa alal kon da ngay bàyyi sëpp da ngay da ngay bàyyi sa sa sa sa say say say bagage noonu julli ji kenn du ko laal waaye ba man juma jumaay Sëñ Seex léeg ma daan waaj ba jekk sol daal yu ñaaw xam na ñu ko xamul dañoo wax ci moom xam moom du wàccaay bi ginnaaw daal yu rafet yooyu ñu sàcc ko sàcc yi dañuy julli si ci boppam day julli si waaw sàcc yi si ndax léeg-léeg nga dégg ku julli ba génn naan sama daal yi jël nañ kooku ko jël ñu julli si woon ay ab sàcc ab sàcc ab sàcc julli si woon sàcc yi dañuy julli si waaw kon bu fekkoon ne iñaanante amul dañuy yéenante lu baax kenn du sàcc kenn te man damay faral di wax ne léeg-léeg bari na bari na bari na gis nga kii sàcc nit kii sàcc nit yomal xiyam dana am da lay leer nañ ñi ci ne ki la sàcc da laa xam moom ku la jege gis koo gis ne xamoon naa ne xamoon na te te yomal xiyam moom xam nga raaxaloo moom am na fii ci àdduna waaye raaxaloo amul yomal xiyam amul raaxaloo koo fa yoreel ak da nga ko fay bala ngaa bougé yomal xiyam amul raaxaloo waaw koo fa yoreel àq yomal kan da gis ku bari aw yiw lool andi ne tël ñu ñu poño ko kaay fii laa doon te gaa nit ñi maa ngi lay yëgal leen nit ñi am na ci ñoo xam doxuñu benn am na benn waay boo xam ne na ku ku ko yoreel bor nee na soo ne ceel mu ne ceel ndax bëgg bu ëllëgee ko yoreel waa ji bokkul dara moom it na nee na <laughs> waa ji waa ji waa ji ku bon la moom nee na bu ko yoreel ak nee boo ne ceel mu ne ceel ndax ne daa bëgg bu ëllëgee ku ko yoreel ak waaw am na ñoo xam noonu lañ mel da nga leen di tooñ ñu ne miig te baaluñ la rek bëgg ko la yor àq dong bëgg nga yor leen àq ëllëg dong waaw am na ñoo xam ne xam nga ñi ngay tooñ ñett lañu ñi ngay tooñ ñett lañu nit ñi ñi ngi ciy tooñ ñett lañu am na koo xam ne du la muñal dara rokkim rokkim loo ko def mu fayu kooku moo gën de astafala am na koo xam ne maanaam saa boo ko tooñee du ko coow te dalay baal kookoo gën ci ñi ci ci ci ci ñi tooñ bu mun ta ñàkk koo xam ne saa boo ko tooñee du ko jàmbat du wax dara te dalaa baal ci xolam ku ko gën mu am koo xam ne moo tane mooy soo ko tooñee du la muñal loo ko def mu delsi bu dee kàddu dana delsi bu dee jëf day delsi day fayu moom kooku moo tane ndax fii ngeen koy fayantee mu jeex mu am ku bon nag koo boo ko tooñee danañ miig ci xelam na naaxaar ba ëllëg ak a bon ngir bu ëllëg mu nga yar ga moo tax tooñ baaxu suuf dëkkandoo nag dëkkandoo moo gën maa tooñ dëkkandoo moo gën a yéesati ubbi foos boo xam ne xelli ndox di ci buntu kër bi mu di ko jàmbat di ko jàmbat di ko jàmbat ba mujj ne cell jëmbatu nga yaakaar ne dara nekku ci fekk dana nekk dana yeeru ëllëg de dana ne mën a a lit waaw ak façon tooñ bu mu mën a doon rek wóorut na ëllëg yowmal qiyam ku fort yoreel nit àq bala nga sëqib jéegu da ko fay kon iñaanante sàcc ëllëg ne tëll ñu téye ko waa ji jàkkaarloo diw sàngam xam ne diw sàngam moo ko sàccoon kon wala taxasu bi wala taxaasumin iñaanante day ani xuloo xuloo moo gën a bon ndax xuloo waa sawara koy def taxaasuma ahli naar xuloo mooy werante werante mooy weerante lu way xam ci ab safaan ci mbokkam di ko weer gis nga xuloo li ko tax mooy nit da nga weeranteeg moom wax ci moom ab safaan buñ leen jubalee ba ngeen juboo it lu mu gàtt gàtt gàtt saa boo ne ko jàkkaarloo moom da am kerse ci loo ko waxoon xoolal ñaar ñu àndoon di xuloo ci yoon wi nekk ay bokk lañ te xamante wuñ xula ba ne sib far far far far ndeke ñoo bokk fu jëm man demee ñu waxtaan ak ñu doon bokki kese lu ko fexe lu ko fi jar xuloo bu nit dee wax romb ko fa jàll rek romb ko fa jàll wala boog xuloo bu mënta ñàkk nga wax benn kàddu mu jeex boog sëñ Fallu moom ku mënoon xuloo la sëñ Fallu am na benn xuloo yi nga xam boo waxee waaja day luum foofu la yem loolu moo tane ci xuloo yi nga xam du ci mën a tegaat baat daa am ku taxaw toog ci fekk Sëñ Fallu xam naa daa am lu dox diggante ma sëñ mu naan sëñ ba day dem na moom sëñ ba di wane bi sëñ Tuubaa demee beneen sëñ nekkatu fi la sëñ Fallu bi naan sëñ ba moom dem na sëñ ba sëñ ba moom dem na moom <laughs> sëñ Fallu ne ko eggaleel wax ji ànd ak taalibe yëpp xam nga fayu na moom it waaw wan ne ko bi sëñ bi mër sëriñ bi taalibe taalibe bi dem dem na waaw na mu ne sëñ bi dem na mu ne ko yow tëli ànd ak tëli bi sëñ bi ànd na ak tëli bi xam nga ba mu ne ko léegi sëñ bi maanaam dañ koy gaaral ne ko yow maanaam sëñ ba dem na beneen sëñ nekku fi mu ne koy tëli bi dem na beneen tëli bi nekku fi rek ku mën a xuloo la moom sëñ Bamba kon wala taxaasumi maanaam yàlla na nga musal société bi ci xuloo xuloo mooy indi tadaabur mooy wanante ginnaaw wanante ginnaaw kenn du bëgg a gis morom ja ab jullit rawatina ñu bokk pas-pas dañoo war a yàkkali konti ci seen biir dañoo kanam du kaso waaye koo ci tëj mu xam ko ab jullit bu nekkee ci mbokki jullitam xar kanam dafa leer xanaa xamoo ne boo yor looy jox sa mbokkum jullit bind li ci kanamam leeral sa xar kanam loola ab sarax la nga wax sa mbokkum jullit kàddu gu neex bind li ci kanamam ree ci kanamam day taxaw taxawaayu sarax te sarax kat mëtta xeeb yow mal xiyaam bu naaj wa tàngee sarax dana soppiku ak ker nga toog ci waaye ñu kenn ku ne nu mucc xar kanam kenn mucc ñu muccëralante dañuy maanaam ak muccëralante bu tasaaroon sax nit ñi dañuy dee ndax koo xool rek xarkanam ba mel ne kaso duñ ñemen fit wooy mooy tëfat fiti nit ñi day tëf tëfee nit ki daa war a bill leeral xarkanam ci kon buñ da doonte nañu bëggante nañu yàkkali konte wala tabaxu di sëñ bi nee na woon bu ñu bañante bu ñu bañante bañ bañ ab jullit du ko def mbokkum jullitam lu may àqi sariya ko waral daa def lu sariya lu nekkul sariya nga bañ ko te bañeel guug it ab diir lay doon boo ci mën da nga bàyyi ko ndax yilifu ko wa ab julit du bañ mbokkam julitam soo gisee mbokk sa mbokkam julit mu nekk ci safaan ñaanal ko yàlla mu génn ca waaye bul ko yére te bul wax ne tey mu dee ndax sa yónni ko ci borom téere borom asal nee na wa man yamut walam yatub an wisrihi fawit ila allahi jamia amrihi laa bil adabi lil musi yuqtaw wal kufru wa taxlidu an yum naw képp ko def ay bàkkaaram ba faatu te tuubul ay bàkkaaram jooyalal ay mbiram ci yàlla ndax jaam la bu tooñub sangam bu soobee suñu borom mu jéggal ko te yoonu kenn ni ci waaye kenn du doog ne diw dañ koy mbugal te xamoo fooy mujj yow kon sëriñ bi nee na bu ñu bañantee ab jullit du bañ mbokkam jullitam day bëggante ak moom bu ñu foñantee teg ci léegi nag yii yëpp bu mu ci bu ñu bu ñu soppantee moytu xëccoo moytu iñaanante moytu dëddoonte moytu bañante moytu xuloo lu mu ñuy defal xatta nasira muslimiina xaashiin nga dégg ci ne bala ñoo nekk muslimiina yooyu day daje ay julli yu bokk daje te fu ñu toll ñuy xuloo fu ñu toll ñu ngi xëccoo fu ñu toll ñu ngi bañante kenn yéenewul kenn dara ndax loolu ay julli lañu innamal mu'minuuna ixwa julli yëpp ay bokk lañu war a doon te buñ doonee bokk fraternité bi l'islam yoon ci digg al mu al mu axaat ci diggante al muhaajiruun ak ansaar ñu bennoo doon mbokkoo ci seen biir kenn ku ne lam yéene boppam yéene ko mbokkam jullitam noonee saxaaba yi nekkoon noonu la sëñ Tuba bëgg képp njaboot gu aju ci moom mu mel noonu ndax yoon sëñ Tuba da doon digal taalibe yi ñu jàpp saxaaba yow ñu nekk seen royukaay loola boo xoolee téerim bi ñu wax xoqal leeral na ko ci xoqal bu kaw leeral na ci melokaan yi mu bëgg ay taalibeem mel ko da ngay fekk ci téere mu ne baaxoo fudulan bi dikrillaahi xaaliqihim fa nawma fi leyli baaxoo bil munaajaati ñoom dañuy jaay ay caaxaan jënd ko tudd yàlla mi leen sakk na nelaw guddi dañ koy jaay jënd ko diyaaleeg seen borom ba bët set taj fol madaaji'a fii laylin junubuhum naasina salma wa layla bil busharaati bu waxtu guddi masaan jot nga bànnee ko nelaw sa kaw lal set ñoom ña ngay bànnee jaamu seen borom ba set dañuy bëggante te yàlla tax di waxante dëgg seen biir te yàlla tax di labirante yàlla tax wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maal wafaay bi sidqin fil uxuwaati dañuy ragal yàlla ci njëlbeen ragal yàlla ci mujj ragal yàlla ci zahir ragal yàlla ci batin it fi l bidayati xawfu dambi yasjuruhum wa fi nihayati ijlalul jalalaati dañu doon ñoo xam ne xam-xam mooy nekk seen mandarga seen jikko mooy lewet duñ toog ci grand place di weddante di wax lu ñor lu ñorut al ilmu siimatuhum wal xilmu daydanuhum doona daaw wa inkaari l maqaamaati dañu doon ñoo xam dañu xam yoonu yàlla tënk ci seen bopp ta duñ ko wàcc mukk guddeeg bëccëg ca la ñu nekk arkaanu bayti jamiil qawmi arbaatun biha yuassasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juun tawilun baadahu saharun wa uslatun am suyuqin bil ishaaraati ñi mooy ñoo xam ne ku leen sopp yàlla sopp la ku leen bëgg yàlla la ku leen jox addi yàlla bëgg la tuba li abdin ci yàlla boole kon xataa nasira muslimiina ñu nekk ay julit xaqan xaashiin nekk juli ragal yàlla ndax lu ñu def ci kaw ragal yàlla lañ koy teg jëflante bu ñu jëflante ci kaw ragal yàlla lay doon adduna duñ ci yàqee ëllëg adduna bii duñ ci yàqee ëllëg ndax fii kërug liggéey la du kërug fay yomal qiyaam mooy kërug fay du kërug liggéey xaashiin ragal yàlla mooy waral soo jëflanteeg nit yàlla nga ciy xool moo ne day jëflante nit ca may ñàkk caa bàyyi xel yàlla sketch yi ñu faral di teg muy ay théâtre léeg-léeg nga xool léeg-léeg ñu def ci loo xam ne ki koy def bu bàyyi bàyyi woon xel yàlla waaye du ko def day bàyyi xel nit am benn sketch bu ma doon seetaan waa ji daa ñëw di ko ger daa ñëw di ger di di ko ger di ko ger te ki muy ger ci gouvernement bi lay léggéey souvent ñiy liggéey ci gouvernement dañuy aj sa kaw photo président léegi nag mu ngi fob ger gi di ko jox bu ñëwee bay nangu ger gi teen xool photo photo bi sëgg ndax xam na ni li muy li muy def day yàqal président mu sëgg ma ne ay waay kii xool photo photo président di sëgg ngir ger ngir ger gi muy ger mu yàq mu yàq euh, régime am naka moo ki sàkk président nag loo ko tax lu tax bayul xel yàlla mi sàkk président lu tax bayul xel yàlla mi sàkk président ndax président dafay yàlla du fi jógee te ki muy rus gisu ko xamul saa li muy def teg kon kiy jëflante xaashiin ragal yàlla gi mooy waral lu muy jëf jëflanteeg yow ci kaw ragal yàlla la koy teg xatta bu doon dawal oto ba egsi ci barab boo xam ne maanaam euh, kenn nekku fa di ko gii de mu takk der la mu war a def lay def du burle mukk ndax ginnaaw dañ koy tere rek te al muslimu ala sharti juri bu nit dafa bu sartante da ko war a sàmm kon bu ma fekkoon nit it naa def li ma war a def hmm? waaye cay signal gauche jàdd droite fi bari di wane ni fii la jëm te jëmoo foofa hmm. te signal gauche jàdd droite de képp koo def ku ne boo ko defee ci circulation bu bu ki topp sa ginnaaw bu xiiree da ngay da nga def soog ndax boo di boo signalé gauche day jàpp ne gauche nga jëm boo ñëwee droite ba fan ay lay fekk képp ku ko def ci diine ah, exactement tey kon xaashiin lépp lépp jëflante na tegu ci kaw ragal yàlla wa mu'minina kon gis nga iman man ngaa nekk muslim nekk xaasha boole nekk im doon nekk mumin xam nga iman yumut ci suba rek mën naa ne cours bi ma am ci seconde cours boobu ci ci loolu la jëm muy lan mooy diggante imaan ak islam iman baat la boo xam dafa seddu ñaari pàcc am na iman bil ma foomil am am na iman bil ma foomil xaas iman bil ma foomil bil ma fa am mooy iman goo dafa ànd dafa beru noonu kooku subaa iman bi di kat diin kulli la doon iman bu amee islam benn jaanib la ci wàllu aqida mu nga xam ne tawhid lay jàngale iman boobu nag islam man na faa nekk te du fa nekk qaalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kon islam mën na fa nekk te iman du fa nekk iman dëgg dëgg dëgg bu nekkee ci xolub jullit lu lu mu lay wax moom la gëm lu mu lay wax da fekk day fekk mu nar ko lu muy narit day fekk mu wax ko yow di wax loo narut day yàqub ànd waaye di nar loo waxuti day yàqub ànd looy wax na fekk nga nar ko looy narit na fekk nga wax ko ñoom ba noppi kon muminina wa muminina muxlisina muxlisin gis nga ixlaas fa mu nekk nga dégg ci ne kon sellal lu jafe-jafe la gis nga jaamu yàlla yiy jàll bala ko yàlla nangu faaw mu sell sellal googu mooy waral mooy waral ndax xam nga ay poste contrôle daa nekk ci kaw asamaan si jëf ju baax bu nikki jëf dana taxaw ci poste yooyu ñu am lu ñu su muccee jàll su muccee jàll su muccee jàll bu mucc yëpp yàlla doo ko nangu moo jëf du ñu nangoo ko jafe yàlla nañu yàlla nangul suñu jëf wa mu'minu muxlisina saalihin saalihin nag fa la ray ba téene asaalihun yàlla nañ ci yàlla boole asaalihun mooy ñi yàllay teral këll ëllëg yomal xiyam ci àjjana sëñ Tuubaa nee na société bi ma indi fa mu leen di yóbbu mooy ngeen nekk saalixoon su ngeen nekkee saalixoon mooy nekk ngeen ñu ragal yàlla te ñi ragal yàlla ñoo la yàlla li waajal ajjana alquran a ko wax alquran ne ne inna almuttaqina fi jannatin wa uyun yàlla nee na ñi ragal yàlla ajjana la ñuy laa leen di laa leen di waajal yàlla ñu ci yàlla boole kon société baa ngi noonu ñàkk gee defit nag daanaka dugg na ci tomb bi waaye ma ma résumé ko rek biñ ko defut xëccoo yaa ngi tasaaroo biñ ko defut noona gaa ngi tasaaroo bi ñu ko defut sàcc gaa ngi tasaaroo bi ñu ko deful rayante baa ngi tasaaroo bi ñu ko deful ñu ngi sàcc yi jàmbur yi di leen rey bi ñu ko deful ñu ngi sàcc doomi jàmbur yi ngir alali adduna bi ñu ko deful kenn xamul fooy taxaw kenn ku ne boo ji mu ne bu doomam génnee këram ngir di jàngi ma ngay tiit ku ko këf buñ ca bëggee mucc nag faw ñu del wàcce baas ba mooy jàngal gone yi te yar leen ndax gone ñu avenir ëllëg gone yi suñ leen jàngalee jàng bu sel yar leen yar bu sel kenn du leen wooloo di leen def loo xam day xañ ab société jàmm garab su demee bay ndaw jubbantil mu jub di su dee mag ba am kàttan balaa jub nga damm ko xaleel su demee bay ndaw jubbantil tawañ ko njub saxal ko ci ay teggin ak ab yar mu màggee ko gone gi nga yar teg ko ci yarul lislaam kenn du ko mën a exploiter ci loo xam ne ni dafay dafay xañ société bi jàmm jàngala sa doom yar ko mu mel na la waykat ba waxoon ci rasulullahi salaa sallam wa kam abin qat ala bibnin dura sharafin kama ala bibni abdillahi addinaanu doom ju baax ñëpp a koy doomoo yaral sa doom ba mu doon doom joo xam ñëpp a koy bëgg a doomoo yal na yàlla may ñu doon doom joo leen di bëgg a doomoo li ñu mujjee nag mooy beneen dénkaan mbokk yi dénkaan moom duma ko commentaire dama koy tënk mën naa tënk liñ doon wax lépp dañu wax ne ci sëñ bi la jóge dañu wax ne sëñ bi nee na woon ndax xam ngeen lan mooy waajib ci yéen ak lan mooy mën dóob ci yéen ak lan mooy mu baax ci yéen waajib ni ñu ko xamee ci mooy lu war man dóob mooy lu ñu sopp mu baax mooy lu dagan waaye sëñ bi day fiir ay waxam daal ne lii waajib ci yéen mooy wàcc lal yi te dem ci der yi ndax ab tëra nga ca kanam boo xam bu ci ni eggee dana tëdd lu mu bëgg tëdd ba tëdd lu mu tëdd damay tëray ba mel tëdd doon nga bëgg da nga doyal sëkki nelaw ña woon ci jamono si moom aadama ba fii ñu toll ñu ngi tëddi xaar ñun ñii téeméeri at ci kanam dañuy tëddi xaar rek ilaa xiyaami saa kon wàcc lal yi te dem ci der yi ab tëre nga ca kanam boo xam ne ñu eggee dana tëdd lu mu bëgg tëdd ba tëdd lu mu bëggutoon tëdd te muy tërëy bàmmeel daan na lii man doob ci yéen nee na mooy wàññi ku ndam yi bañ a bañ na démb la woon bis penc teel ma wàññi ku ndam yi bañ na démb la woon bis penc fii moom ku fi ndamu na ngaa dof léeg-léeg boo déggee ko xàqataay ba baatam jeex na ay waaye ndaw sàmba mbati ku jéggi siraat ba ja maanaam yii nekk sa kanam dafa bari te benn nga ci weesoo gut kon tëroo yuuxu tëroo xaqataay yow sukkuraati dee gi ma wax léegi mi ngi sa kanam waaye tam barsax xañ sa kanam barsax googu jaara goo fa alquran ne wa min waraihim barzaxun ila yawmi yubaathuun jaara fa jéggi goo siraat wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya jéggi gu sirat kon tëloo ko keroog ba ñu ni génn seen bàmmeel ka annahum jaradum muntashir na pallet pallet ci bàmmeel kon tëlu goo xaqtaay kon boo boo weesu faatu weesu sukuraat weesu faatu weesu barzaq jéggi siraat ne tëll am sa bayre dëgg mal sa këri àjjana yi allahu akbar foofu moom waxuma la xaqtaay waaye fecc sax jot na feeg weesoo foofa nag sëñ bi nee na dama teel na ji ndikku ndam yi bañ na démb la woon bis penc nee na nit mu baax ci yéen daal di ne dara dara dara dara ju njëkk ñi ne yàlla adduna mi ku xam ci moom dara doo fi def dara ba di ko naw ngir dara du fi des dara ñaareel ji mu ne àllaaxira mi ku xam ci moom dara doo fa def dara ba di ko naw ngir dara du fa doy dara yi ñetteel mu ne yàlla mi ku xam ci moom dara la muy tere doo ci def dara ndax day buur bu am sañ-sañ am kàttan am man-man te amul benn doole wala benn kàttan bu koy mën a deltu lu ginnaaw jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu am la tegoon mag ñi sëñ Abdoulaye tënk na ko sëñ Abdoulaye nee na société boobu sëñ bi mu ngi ko tënk si xasida ko ñu wax man la bu sifaay te tënk ko si ñaari béy kese kon sëñ Tuubaa lu mu fi dund ak mag ñëpp si ñaari béy doo lañ doon dund te wajal qulubana ala tawadudi bila tanasuhin wala tahasudi wala taqaasumin wala tadaaburi wala tabaqudin wala tanafuri suñ defee loolu nag am na lu ñu jural moo di lan atta nasira al muslimina qaasiin wal muminina muxlisina saalihin kon société boobu la doo sëñ Tuubaa dund sëñ Abdoulaye nee na gannaaw bañ dëddoo loolu ñun nag bàyyi fa lu doon sëñ Tuubaa dund ñun ñu ngi dund beneen société bu bokk te bu doon sëñ mooy wàllu sàcc gi léegi wàllu naafeq gi wàllu wax lu doonul dëgg gi wàllu sàcc xale yi di leen rey loolu lépp sëñ ab laal leeral na ko nee suñ bëggee solution si loolu nag nañ dellu fi sëñ Tuubaa nekkoon ak mag ña te moo di tënku si bëy yooyu nga xam ne moom lañ wax léegi sëñ ab laal tënkee na waxtaan wi fàttaliwaat ñu ndénkaale sëriñ Tuubaa lu am solo loolu muy ñetti point muy li nga xam ne mooy waajib li mat a def ak man duub ak li nga xam ne mooy mu baax sëñ ab leeral na ko kon sëñ bi ñu lay sant bu baax di kontaan xam naa ñun donge yi moom saa su ne dañ lay safoo ndax bépp waxtaan boo fi mas waxtaan ñu ngi ko def suñuy téléphone def ko suñuy carte di ko déglu saa su ne ñu ngi lay ñaanal di ñaan nga gën a am kattan ba saa bu ñu la soxlaa nga mën ko teew ñu ngi jégalu mbooloo mi yëpp di ziar kan gan yi nga xam ne ñoom la suñu ablaat àndal ñoom it di leen nuyu bu baax di leen wàcce seen wàccuwaay wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu